asalaamaaleykum man la soxna Maimouna Euh, présidente des femmes euh, patriote du Sénégal ex-Pastef coordonnatrice de la section communale de Pastef maire de la commune de Patte et à dogal donc dénk ma commune de Padoua, mm, di suis di waxtaan ak yéen tey ci daje bi fi daje muy li ko waral les patriotes de la Patte d'Oie ñoo ñëwoon tey wan ma li nga xamante ni moom la ñu liggéey ci période bi nga xam ni moo doon période parrainage yi ma jëli ci nag lu kawe sama njort ndax xamoon naa ni ñu ngi ci terrain bi xamoon naa ni ñu ngi góor góorlu ci mbedd mi xam naa ni population yi aussi ñu ngi leen di fekk ci ñoom seen kër ak ci table yi ñu doon teg ci mbedd yeeg mais surtout man nii sama euh, gardien yi ma yor fii ci bunt bi chaque min ñu dugal ay carte d'identité ne nit dafa bëgg parrainer muy loo xam ni wax dëgg yàlla xamoon naa ni dina baax waaye dama cee jëlee lu kawe sama njort ndax dañoo atteindre vraiment suñuy objectif largement di leen gërëm di leen sargal di ko jaarale ci sama turu adjoint monsieur gorofay Faye mais ci sama secrétaire général monsieur Cheikh Anta Gueye waaye di def mention spéciale à monsieur Pape Amadou Cissé mi nga xamante ni moom la yàlla dox dogal ñu dénk ko depuis cinq ans on peut dire depuis les élections législatives les loo de 2017 les loo xamante ni mooy mbirim élection mu nekk nag ci liggéey boo xam ne boobu ba tey mosu ci dellu ginnaaw benn yoon ci sérieux ci fulla ci wax dëgg yàlla taxawaay maanaam bu engagé woo daf ciy dem ba jeex tàkk interview la mais c'était une occasion pour moi de lui rendre hommage parce que vraiment

foogoon naa xëy na ñenn ñi sax dinañu pare na feneen waaye bis bi ñu ne Pastef tàmbali na 111 Bassirou Diomaye Faye sama téléphone bi jour boobu li ma jot ci appel xaw ma nu mu toll ndax lan kan laa war a kii fan laa koy defee mujj gi dama mujj jël kenn def ko point focal muy Pape Amadou Cissé kuy woote ma ne ko demal ci moom mu joxal la euh, ki nga ki nga war a dem pare parrainé quartier yëpp sans exception su ma doon lim du ma du ma bàyyi mais quartier yëpp ku ci nekk objectif bi ñu la joxoon danga nga ko dépassé kon nag loolu li muy wane mooy confiance bi sénégalais yi amoon ci ñun am nañ ko ba tey te loolu ku mu doyul dara du la doy alhamdulilahi rabil alamin Ousmane Sonko nag moo waral mbaboor bi Ousmane Sonko moo nekk ci situation boo xam ni tey xëy na jël nañu beneen tour ne nañ ko parrainé xool fi ñu jëm ak moom ndax nag Ousmane li muy lal comme li Dame Mbodj wax Euh, état sax du ko gis te bu soobee yàlla yàlla dina ko génne ci kattanam te yàlla dina ko may mu nekk la cinquième président de la république du Sénégal moom mi waral mbaboor mi nag ñun lu mu ñu wax loolu la ñuy def fu mu ñu teg loolu lañuy foofu la ñuy taxaw lu Ousmane wax loolu la ñuy wax waxuñu leneen donc le choix de Diomaye n'est pas fortuit ndax dafay koo xam ne nag dafa am lu mu doon ci parti bi dafa am lu mu doon ci Ousmane Sonko kon tey jii bu ñu nee moom ñun ñëpp dañuy ànd ne moom la waaye it leneen lu président indi wax ci loolu la ñuy ànd ak moom ndax ñun moo ñu ñor di ñaan yàlla ñu yeggaleeg suñu sago di ñaan yàlla ñu mucc ndax nag yàlla ku mu teg loxo yàlla ku mu xës ni yow a baa mu téye la kenn mënul ci yow dara te foofu lay jaar xëy na remercier sénégalais yëpp di leen jaajëfal ndax biñ ma tëjee ci kaso bi am na ko ma ne 17 million de sénégalais yëpp àndoon ak yow nekk ci kaso bi 17 millions de sénégalais yi euh, sénégalais yëpp ñoo àndoon nekk ak yow keroog ci bloc opératoire bi ñu lay opéré ma xam ni kon ñaan ku ko xeeb man xeebuma ko yàlla dimbali na ma ndax ñaanu sénégalais yi ñi ma xam ñi ma xamul ñi bokk ak man ñi bokkut ak man ñëpp ñaan nañu ma toll woon ci jamono yu metti dem ba saalit waaye ma ànd ak yàlla yàlla moom ma àndal nag tey moo ma teg fii kon ñun amuñu dara dara loo xamante ne nii rek dinañ ko am ci sikki sàkk ni doole yàlla rek moo fi nekk c'est Dieu qui est aux commandes et c'est Dieu qui décidera de qui va advenir de pays ne waay lu waaye bëgg nag na ko def waaye ñun ñii fa ñu taxawoon démb fa la ñuy taxawaat naka ànd ak sénégalais yi wóolu yàlla doyloo ko di ko ñaanal rek di ko ñaan rek mu sàmm ñu

ñu ngi ñaan ñu ngi encouragé ñu ngi may seet ma leen di xamal ni wóolute googu population yi am ci man incha allahu rabbi mooy doon sama doole sama sama kiiraay dinaa continuer ànd lii ma yàlla dénk muy mairie Patte d'Oie ma liggéey ci lii ma yàlla dénk muy collectivité territoriale bu ñuy wax Patte commune da lépp lu ma am dinaa ko ci def lepp lu ma mën dina ko ci def te inshallah allahu ma ngi ñaan yalla mu may ma ci ndam duma ci sonn duma ci tàyyi inshallah allah ñu reprendre ak liggéey bi ci na mu waree léegi jaar yoon kon li ci dess bareetul ma ngi leen di gëreum nak ndax ñoma tax am fit sama adjoint au maire yi autant qu'ils sont ñom ñepp ku ci nekk bëgguma lim tour yi ndax du ñepp la bokal euh, parti kon dama leen di ñaanal yalla ñom ñepp taxawaay bi ñu am ci man yàlla leen ko yàlla fay jigéen ñi góor ñi jeunes yi ñii nga xamante ne yàlla dogal na ma ànd ak ñoom nekk fii ci Patte bii di jéem ndax kenn mënul yàlla man yàlla na ma leen yàlla fayal xamal naa leen lenn de fas yéene naa toog ànd ak yéen liggéey dellu si waat naa te fas yéene liggéey nag ba mu mag sëkk di ñaan yàlla incha allah du yàgg torop ñu wan leen li nga xamante ni noonu la ñu nar a taxawee ndax xam ngeen ni ex Pastef moom euh, ay feem rek la àndal feem yaa ngi ñëw feem yaa ngi dikk te bu feem yi matee ñu xam ne Ousmane Sonko sunu borom moo ànd ak moom yàlla na ko yàlla sàmm yàlla may ñu ndam Sénégal bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ci bokk yéene Sénégal boobu incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla may ñu am ko mooy Sénégal boo xam ne ku nekk li nga moom di ci jot Sénégal boo xam ne ku nekk la nga yeyoo di nga ko téye Sénégal jëm kanam kenn dootul dugg ci gaal yi kenn dootul ut foo dem làqatu wala nga naan da ngay dem euh, di di di di jaay sa bakken ci àll bi incha allahu rabbi jërë ngeen jëf maa ngi gërëm ñëpp nag pour ne pas me tromper mënatuma lim mais maa ngi gërëm ñëpp di wax rek ni à vous les journalistes aussi je rends hommage à vous les hommes des médias ñi nga xam ne vous êtes engagés pour pour qui c'est un sacerdoce de renseigner de bien renseigner et de renseigner correctement Yalla na len yalla fay Yalla na len yalla dolel. jërë ngeen merci à tout le monde